mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu di sant yàlla di julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV euh, jiital ci nuyoo bi la xalif général Baye Serigne Assane sekk di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ak lépp lu mu jaboote euh, jaar ci moom nuyu xalif généraux yu nekk ci réew mi euh, wàcc nuyu njabootam Serigne Cheikh Amadou ak ñi mu àndal ci liggéey bi muy imaamu ratib bu Thiénaba Serigne Alsane Niane Seck chef de village bu Thiénaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi chef de quartier ak chef de village wër Euh, nuyu le première magistrat de la commune de Thiénaba monsieur le maire euh, Talla Diagne di ko ziara di nuyu tamit euh, monsieur Babacar wàdd sous-préfet bu Thiénaba moo ñuy jàllaleel nuyoo bi ba ci son excellence le président Macky Sall bu ko defee képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ci réew mi rek da nga ciy jot sa wàll ci wàllu nuyoo bi nuyu téléspectateurs yi di am mbégte di teew fii ci mairie bu Thiénaba li waral teewaay bi nag mooy ñëw seet si ki nga xam ni mooy kilifa gi muy monsieur le maire Talla Diagne waaye ñëw ko ak mu toog ak conseil euh, municipal bi wala ñenn ci conseil municipal bi euh, ci waxtaan woo xam ni euh, war nañ koo waxtaan nag ci ndigalal kilifa yi xam naa détails yooyu moom moo ci dugg li ñuy njëkk def mooy jox ko kàddu gi moom monsieur le maire bu ko defee dina yëkkati kàddu gu am am solo def benn déclaration bu paree ki nga xam ni mooy monsieur Ndiaga Dieng moom nekk ci bokk ci commission domaniale bu mairie bu Thiénaba moom tamit dina yëkkati kaddu def déclaration bi détail détails yi ak information yi mu bëgg a jàllale yëpp bu soobee yàlla dina ko jàllale waaye euh, ma fàttali leen ni euh, waxtaan wi nag mu ngi jëm ci wàllu euh, suuf si nga xamee ni mooy suufu Canaba ginnaaw bi nga xamee ni kilifa yi waxtaan nañ ci biir waxtaan ci ba déggoo ci jëlaat suuf si jox ko ki nga xam ni mooy monsieur le maire Talla mu war koo saytu ndax njaboot nag war naa mën a saytul waajur njaboot war naa mën a saytul population njaboot war naa mën a saytul boppam euh, noonu lañ koy dégg rek bu ko defee détails yi bu ñu yëkkatee kàddu rek dinañ xam ni euh, moom kàddu gi mu ngi jóge ci kilifa yi euh, bu ko defee rek ñu déglu kon monsieur le maire Talla Diagne bu daaneelee ñu jox El Hadji Ndiaga di conseil municipal bu ko defee ñu yëkkati jataay bi. kon salaamaaleykum wa rahmatullah e, ñoo ngi nuyu population commune Thiénaba di jiital ci nuyoo boobu. sunu kilifa sunu xalifa général Baye Assane Seck di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér eh, nuyoo boobu ñu koy teg ci loxoom mu jotal ñu ko famille maam Ahmadou Ndaak bi yépp mooy yu góor yi ak yu jigéen yi mu tegal nu ko ci loxol taalibe yi ak dëkkandoo yi waaye nuyoo boobu nag dañ koy teg ci loxol sëriñ Maam Mor Seck mi nga xam ni moo ko fi teewal e, di ñaan yàlla li tax ñu daje fii tey yàlla dimbalin ci ba nu am nan ko gëne waaye loolu nag du dara lu dul ginnaaw bu ma sante conseil yi nga xam ne ñoo teew fii bokk ci commission bi ci ñenn teew fii parce que bu ñu tuddee commission domaniale te gisuñu góor Diagne gisuñu Mori Gueye mën naa am Mm, ñu gise ko neneen waaye ñi fi teew tey di sëriñ Mamor Seck yor commission religieuse bi Njaga bokk ci commission bi ak Modou Mbuub moom itam bokk ci commission bi euh, Baye Talla Gueye mi ngi ci commission bi sëriñ Mamor Mbeng mi ngi ci commission bi aadama Diop di sama premier adjoint sëriñ Jàmme Gueye ñëw tey pour tasal nu li nga xam ne moom lañ fiy wax ba population bépp mën koo dégg jàpp naa ni ku ko seetaan boo doon dox sax di nga toog pour déglu information bi fan la jëm sëñ Mbaye Kanete ci commission bi la bokk mais ku ne xam na nañ dafa xëy liggéey yi nag boo commission bi toogee li ci ëpp lépp mën nañ koo yóbbaale bu dikkee nag ñu rendre ko compte information bi Baye Jàmme lenn rek la maanaam Thiénaba ak li ko wër ku ne xam na ni coowal suuf li bari na fi lëj-lëj yi bari na fi mbedd yi fatt yi bari na fi loolu rek moo tax bi kalaame bi baree coow li bari ngi dem ci xalifa bi mu wax ni daan man li samay mag defan duma ko dindi waaye nag bu ma sañan lëj-lëj bii am ñu lijjanti ko ci sama kanam ñu xam ni ci man la lijjanti ko te loolu nag mënuma ko def lenn lu dul jébbal ko maire mu defal ma ko ndax ci sama njaboot la bokk loolu nag bi mu amee ma ni ko li nga wax dey mën na nekk parce que man njaboot laa doom laa taalube laa ci ndigal rek ci lay wéy waaye dafa am lu ma tënk muy conseil municipal u Thiénaba conseil municipal yu Thiénaba mën naa dem wax leen ko ni leen bàyyi Assane nee na lii la bëgg ndax mooy xalifa général te dafa bëgg ba yépp nekk ci jàmm ndigal bi mu joxe nii cere ba nekk ci jàmm bu ëllëgee kenn du am problème looloo tax mu joxe ndigal li bi loolu amee nag ma ne ko nag li gën mooy nga jox ma firnde bu wane ni conseil municipal bi xalifa général nee na naa ko lijjantil suuf si te man ci yéen laa mën a joggi pour lijjanti loolu waxe kese mënu koo def ci la bind kayit bii jox ma ndigal su réservé la wax amul fenn foo yem lijjantil ma lépp ba mu lijjanti ko defe naa kii lii leer na ci laa ko soumettre conseil municipal bi ñoom ñëpp ñu d'accord ci rafetlu ko li waral daje bi tey nag mooy bëgguñoo dem di lijjanteel kenn mbiram te fekk waxuñu ko ni ko ñoo ngi ñëw waaye ñoom commission bi leenuy def yéen leen koy defal jógunu pour nangu teereb kenn jógunu pour nangu suufus kenn jógunu pour xuloo ak kenn danoo jur pour lijjanti leen ngeen tege ci aw yoon mën a am ay kayit képp koo xam ni am nga kër ak fu mu mën a nekk te amul woon kayitu mairie ñëwal ci mairie mu defaral la këyit ginnaaw bu fa commission ba ñëwee ba xam ni fi mu tege nekkul ci mbedd waaye nag bu nekkee ci mbedd wala muy place publique boo xam dañ ko faa bàyyi wan ñu dagg ko jox la ko loola nag moom lu ñuy waxtaane la néewunu dañ koy nangu waaye lu ñuy waxtaane la parce que place publique ñépp a ko bokk mbedd it ñépp a ko bokk lii moo tax commission bi jóg man nag commission bi dama leen doon ubbil rek jox leen information bi mais ñoom suñu déparé nañuy liggéeyee ñoom ñoo ko xam waaye jàpp daan nanuy liggéey it mooy lii ma wax mooy ñëw defaral leen ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak tey ba li ngeen bëgg ñu defal leen ko ba bu ëllëgee du ngeen am benn problème lii mooy wax ji euh, bi nu ko waxee ci conseil municipal bi nag am na ci borom tool yoo xam ne nan ko déggee woon ak ni mu amee du benn parce que danoo jàppal ni maire day ñëw rek li nga xam ne moom dafa commission bu njëkk bi defan ñu borom tool yi nungu wan ko maire jëlaat loola joxaat ko ñun ko joxat déedéet demewul noona xañ na mën na ne waaye ci ak mooy wax ba juboo rek lépp lu xool daal ni lii amul lëj-lëj juboo nañ ci te ñëpp d'accord ni nañ ko jox kii man jàpp naa ni loola du am problème waaye bu ma saña nit borom tool yi ñu bàyyi xel ni ñu nu dëkkal kenn ku ne amoo foo dëkk waral ngaa mën a dagg ci sa kër jox ko ginnaaw amatoo sa kër foo dagg jox ko rek te am nga ab tool boo xam ne yàlla dogal na daggan nga ko te kenn ko joxoon ci dëkk bi la dëkk jàpp naa ne war na mën a waxtaan ba kooko mën a am fu mu dëkk lii rek la waaye jàpp naa ni daal e, ñii li leen tax a jóg mooy defaral leen ak yee nit ñi bëgguñu nag ñu départ dikk di leen defaral nga ne ah yow mëneen nga maa wax ni maa ngi ñëw kon boo bu ma xamal ne yaa ngi maa ngi ñëw dama lay xaar loolu lañ ciy bañ moo tax information bi ma woo réseau bi tey sëñ njàmme ñëw ñu jàllale information yi kon li ma wax ne dama doon ubbi mais commission bi ñoo xam nu ñuy toje seen bopp jinax ba mën a départ ba lépp rafet loolu rek moo tax xam ne leen ubbil kàddu yi rek laa ci doon sànni sëñ njàmme di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen balu àq rawatina ñi dëkkee ba yëpp ak commune Thiénaba euh, tey li ñu indi fii euh, defe naa ni monsieur le maire am na ci loo xamante ni leeral na ko wax na ko te loolu rek mooy li nga xamante ni moo nu tax a jóg ci mbir mi mooy suuf moom euh, ci Sénégal source de problème la waaye comme danoo dëkk te mënunoo tàggoo Euh, faaw rek nu juboo ci naka la ñuy dëkkee ci kaw suuf ndax ci la ñuy bay ci la ñuy dëkk ci la ñuy dox di dem suñu yitte yépp ci kaw suuf lañ koy defee gannaaw bu nu ko yàlla terelee konte mën na bañ a indi ay coowoo mën na bañ a indi xuloo mën na bañ a indi xëccoo ndax kenn ku ne xaj nga ci biir suuf te ñun ñëpp ci suuf la ñuy mujj lii nga xamante ni moom lañ ñu sant te conseil municipal bu Thiénaba sant ñu ko ci délibération bu ñu def ci kanamu autorité administrative bi ak autorité locale bi di monsieur le maire ak monsieur le sous-préfet ba gépp conseil yëpp fekkee ko muy conseil municipaux yëpp waaye ñu jël benn commission boo nga xamante ni dañu wax ni commission boobu ay conseils municipaux yi dëkk cena ba ñoom ñoo koy say ndax say suufu Thiénaba biir Thiénaba la ñu nekk di ko regle bu ñu demee ci beneen dëkk conseil yëpp a dëkk ñooy regle suuf booba nga xamante ni moo nekk ci dëkk booba tey jii moo tax ñu jël ci commission bi euh, Mamor Seck waa jël ci Modou Mbuub mi ngeen di gis ni jël ci Talla Gueye jël ci mbaykan mi nga xamante ni moo fi nekk euh, jël Mamor Mbeng ñu nga xamante ni ñoom lañu jël tey ñoo war a saytu euh, li nga xamante ni mooy kër yi nga xamante ni moo nekk biir Thiénaba kenn ku ne xam na ni nag ni ñu ko defoon commission domaniale village bi nga xamante ni ci ndigalu Serigne Thiénaba la ko sampe woon moo doon doxal moo doon dagglu moo doon natt moo doon joxe waaye joxe boobu dafa mujj taxaw léegi bi mu taxaweet li ko taxawal ci kàddu Serigne Thiénaba la jóge mu bind këyit jox ko monsieur le maire ak conseil bi ni leen delloo naa leen suuf si ngeen liggéey ci de droit ni mu demee pour ñu conforme nag am papier administratif conforme avec les textes de loi de la décentralisation nga xam ni noonu la ko yoon santaane ñu nit ñu am matuk li nu moom lu jëlaat ko parce que compétence bu ñu transféré la état moo ko joxe kon waruñu cee daw benn res loolu moo tax ñu bëgg cee liggéey waaye liggéey bii ñu ciy liggéey nag dañ ko bëgg liggéey ànd ko ak population bi ànd ko ak yéen ci jàmm ak salaam ànd ceeg yéen ci defaral leen ndax yéen nu fi teg def nu ay conseillers pour ñu jàppale leen du ñu leen teg daan du ñu leen teg lu metti dina ay yërmande dina ci am ñeewante dina ci am ndaxte am na loo xamante ni ñun xam nañu ni yéen la ñu dëkkal tane wuñu leen ci benn côté konte yéen lañ fi nekkal di leen liggéeyal nu ngeen ko bëggee noonu lañ leen koy defale nga xamante ni ci biir lotissement yi eh, ñenn ñi sàkk nañ ko muy place publique yi nga xamante ni eh, ñenn ñi daggaat nañ ko ay terrain dëkkaat fa muy ñi nga xamante ni ñu ngi tabax te amuñu autorisation ñooñu ñëpp ñoo tax ñuy wax ñu bëgg. képp koo xamante ni commission domaniale bi nga xamante ni moo nekkoon Thiénaba te Serigne ba tëraloon ko joxoon na la aw këyit tu parcelle këyitu parcelle boobu bu ñu régulariser ko danga koy indi biir maire boo ko indee biir maire yi fay la nga war a fay ñu régulariser la ko mu jaar ci yoon muy acte administratif bu conforme avec les textes de loi de la décentralisation loolu bu ko defee këyit boobu la nga ca bëgg yépp ëllëg ki si biir di ko mën a am ndaxte ku des gannaaw yaa des gannaaw waaye commune yi ñu ngi avancé ñun na ba ñu taxaw fi ñu taxaw rek am loo xamante ni na maam ya daan doxee dëgg la ndax ci eh, noonu lañ ko daan mayantee ci ay kër waaye léegi dañoo am commune am maire am conseillers municipaux am administration boo xamante ni mi ngi fi di ñu superviser boo xamante ni ci état de droit la koy teg léegi nag loolu nga xamante ni nit ñaa ngi tabax kuy tabax da ngay wut si autorisation ci maire yi ñu defal la kayit woo xamante ni kayitu valable la képp koo xamante ni tabax nga ci mbedd commission bi dina ñëw ñu xool ko bu fekkee ni war nga faa jógee mbedd moom xam nañ ñi fi la nit ñiy jaar fi la nit ñiy saytu mbedd kenn du ko fàtt te mbedd moom mbedd la rek la te plan yaa ngi foon mbedd mu ñu fi fatt ñun jàpp ñu ni commission domaniale bi ñoo ko def mbedd mu ñu fi fatt bu ne defe nañ ni ka fa am kër rek moo ko moo ko taxale xay na def ko waaye bu ko defee nañ euh, ñun dinañ ko dindi bu fekkee ni place publique la boo xamante ne da koo daggoon ay parcelle ay kër itam di ko dindi ndax am na lu ñu saytu lu xool xool lu bari te lii ñuy wax nag ci population bi lañ ko jëlee itam ndax population boobu léegi ñu ngi ci ñoom ñu ne ñu bu fekkee ni dëkk bi am na ay këyit man de sama kër gee ma dëkkee amul kayit ci sama maam la woon ba ci sama baay ba tey ji amulu kayit bu amoonu kayit tey ñu régulariser ko jox ma kayit boo xamante ne ak administratif la boo xam ne yoon nangu na ko mën naa caa mën naa jaay ëllëg mën naa cee leb ba xaalis ci banque bi mën naa cee def lu ne ndax see conforme ak texte de loi yi kenn ku nekk nag bëgg nga ko ba koo wax ni ko wuta fa kër danaan la bu fekkee acte yooyu la ah moom acte yooyu moom dafa valable bëgg nañ fa dëkk nag waaye bu fekkoon ni mairie bi moo ko yore bu boobaa acte yi muy defar nit ñi dinañ saw pour euh, sawar pour dëkk si fi pour ñu def politique d'habitation parce que dëkk bu yaatu dëkk bu yaatu wala dëkk bu dox rek ci économie ci alal ci ci koom-koom ak saytu ko dafa fekk ni da ngaa woote ni ñëw leen dëkk ci sama dëkk bi boo gisee Touba looloo ko def na mu mel boo demee Mbour looloo ko def na mu mel ñun ñëpp a ngi fay dëkk si parce que waaye nag ku fay dëkk da am kayit boo xamante ni kayit bu valable la lii la ñu ni woon en tout cas nañ ko wax di leen ñu tàllal loxo yéen population bi mu wóor leen ni ñun ñii nga xamante ni ñoo ci dugg te yor ko boroomi fulla lañu boroomi fayda lañu te it boroomi ngor lañu te noo dëkk ak yéen lii nu fas yéenee def amul par parloo amul làq-làqal dañ koy leeral ni ko tëcc ci mbedd mi ñëpp gis ko ñu dinañ ko teg ko ci pénc mi ñëpp xam ko lu luñ ci gis loo xamante ni lu ñu warut a gis la bu ëllëgee dinañ ko fësal ñëpp gis ko ñu woo télévision bi nii lii mooy li fi am kenn ku ne sàdd ci sa kàddu ñu bokk ko defal ma ñii leenu séqal commission te it borom mi fit lañu borom mi ngor lañu te it euh, li ñuy li ñu leen liggéeyloo fas yéene nañ koo liggéey lii lañ ñu en tout cas nañ ko ci wax euh, mu gàtt mu gudd képp koo xamante ni am nga këyit daal woo xamante ni commission domaniale bi nekkoon ci dëkk bi moo la ko joxoon ñëwal ci maire yi ñu dajale yooya dinañu jël commission bi ànd ak yéen dem ba sur le terrain ba këyit ba valable ne mu valable euh, fa nga ko def defoo ko ci mbedd defoo ko ci place publique nga ñëw ñu defal la këyit boo xamante ni nangu kayit booba defal la këyit boo xam ne maire a koy signé tamponné ko conseil municipal bi validé ko sous préfet validé ko autorisé ko mu dem nga am sa këyit bu valable loolu rek lañ ci jublu jubluwuñ ci leneen. waaw li ñu wax ni moom la ñu wax dafa dafa itteel xay itteel Kër Maysa Ndiaké Touba Gueye ak dëkk yi nga xamante ni ñoo ko wër commission bi fépp foo mu ci dem ndax fépp am lotissement te fépp la ñu dëkkee euh, fépp fu ñu ci dem dañuy jël conseil ya nga xamante ni ñoo dëkk ca dëkk booba boole ko commission bi ñu ànd saytu loolu ba mu leer kon leer na ni dëkk yépp ci la ñu bokk ndax lotissement bi kër yépp benn la lotissement benn la li gënnaawoon passé nag ti ay conflit loolu dañ koo teg ca gannaaw du nu gestu wu wuñu suñu gannaaw yàq wu wuñu defaraatuñu suñu gannaaw ci ay conflits yu amoon loolu itam na leer nañ képp kuy joxe information nga yem fi nu yem information bi leer ñëpp xam ko looloo tax ñu woo Ndiamé Guèye tey jii pour mu ñëw jël si ko nga xamante ni kenn ku taal sa télévision di nga gis ni lii lañ fa wax kenn bañ ñoo waxal loo xamante ni waxuñu ko. ci présence bi nag président maire baa ngi fi adjoint au maire Adama Diop a ngi fi ñun conseil bi ñu ngi fi am na ñoo xamante ni ci conseil yi lañu ci commission bi lañu bokk waaye tey jii xëy na ñenn ñi joxe nañ gànt ñenn ñi mënuñu leen a wa jot te dafa urgence parce que gis nañu ni terrain bi am na lu jaxasoo lu bari ñoo loolu daal lañ ñu woon nañ leen ko jottali di leen baal àq di leen jéggalu di leen tàllalaat loxo di leen wax ni leen ay caaxaan taxu koo jóg lii nu fas yéene def ci njub lañ koy teg ci dëgg lañ koy teg ci concerté wu ak yéen ci lañ koy teg wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu euh, mbokk yi kon euh, mu noonu euh, mu nekk déclaration boo xam ni monsieur le maire ak commission bi mu àndal muy commission domaniale Euh, ci ndigal li nga xamee ni kilifa gi joxe na ko muy bàyyi sëriñ Assane Seck wàccewaat euh, suuf si seen loxo euh, ngir yenn yi nga xamee ni war nañ ko jubbanti ñu jubbanti ko rek loolu yëpp nag ngir rek mu baax moom moo tax macha allah kilifa yi jël ndogal boobu. li tax tamit monsieur le maire comme ni mu ko waxee ci kàddoo woo presse bi woo Thiénaba TV nga xam ni moyen de communication la boo xam ni képp ku yeewoo canaba di nga dégg information bi mooy bañ a jël ay dogal yoo xam ni xëy rek dal sa kaw mu bett la loolu moo tax mu ni euh, li olof di wax rek nañ ko def joojis nañ ko waxtaane moom mooy jiitu kon euh, waxtaane googu moom moo waral loolu euh, leneen luñ ciy complété muy complément d'information boo xam ni jóge na ci monsieur le maire jóge tamit ci commité bi nga xamee ni ñoom ñoo yore wàllu domanial mooy ñi nga xam ni tey ñu ngi yore seeni chantier di liggéey macha allah responsable yi nañu jige maire bu ñu dégloo communication bi rek nañu dem jige yi Euh, jege comité domanial bi euh, li war euh, seen diggante ak ñoom ñu wax la ko nga def ko boo ko deful nag ba continuer rek liggéey mën nañoo xëy xëy ñëw arrêté sa chantier te chantier moom bu ñu ko arrêté la cee topp day bari ndax mason ba dina toog du am xëy borom kër ga liggéeyam dina xaw a tardé bu ko defee boo jigee ñoom bu ñu waxtaanee ak yow comme ni ko Ndiaga waxee mooy nekkuñu gendarme kenn mais dañoo ñëw rek pour waxtaan ba déggoo kon waxtaan wa déggoo collectivité domaniale bi ñi teewoon ci jataay bi nag mooy monsieur le maire di kilifa gi ànd ko ak monsieur Adama Diop premier adjoint au maire euh, ki nga xam ne mooy Serigne Mamor Seck euh, macha allah euh, bokk ci commission religieuse ak njaga Dieng monsieur Ndiaga Dieng macha allah moom tamit nekk ci commission domaniale ak Modou Mati Mbuub ak Talla Gueye ak Mor Mbeng ñooñu ñoo fi teewaloon ñeneen ñi nga xamee ni bokk nañ ci commission bi te nekk ci yeneen yitte ñoom tamit teewal fa ñi toog fii macha mu nekk loo xam ne lu am am solo Thiénaba TV andi woon équipe lépp rek ci liggéey bi nga xam ni moom lay def mooy leeral askan wi leeral population bi euh, xam ni liggéey bi ñun ñoo ko bokk ñu àndoon ak Modou Fall ak Moussa Ndiambe ñëwoon rek di indi ay leeral fii ci euh, mairie bu Thiénaba yeneen information yoo xam ni war na cee am euh, bu ko defee yow mi seetaan boo ko soxlaa bul tàyyeel waaxul ndànk ñëw fii mairie boo ñëwee boo waxtaanee ak ñoom ñu dolli la ay information yu gën a leer bu ko defee muy muy muy loo xam ni lu